Saliou Ngom fii Jidda Cosmo Cuuraay bu rond-point Camp Pénal dañu ñëwoon seet si la euh, pour nga war présente ñu sa produit façon cuuraay yi ngay jaay ak huile yi cuuraay nag bu ñu ko doon xam dañ daan dégg que ne 1000 francs la daan jar 2000 3000 ba 50 000 nit ñi mënoon nañ ko comprendre mais dañu dégg que ne dafa am cuuraay yoo xam ne day jar ba 6 millions yii da koy ëpp naka la demee loolu waaw loolu moom am na am na sax li ko ëpp bon parce que cuuraayu ay cinq cinq mille bi cinquante mille daanaka pour neexal kër gi la rek pour euh, soxna yi waaye daf ci am yoo xam ne moom dafa yemul ci neexal kër gi dafay neexal kër gi ba pare am leneen laa lu ci rax maanaam lu mel ni ay xuut yi xuut am na ay plusieurs façons yooyu moom dina ubbi dina dàq seytaane mu daal vraiment lépp la boole am na ci am nañ ci ñetti façon fii manam lu Melni comme euh, al muluk bi kilo bi douze millions cinq la mais dinañ par gramme gramme bi douze mille la aussi oud sultan bi kilo bi sept millions la dañ par gramme gramme bi sept la al bi six millions gramme bi moy six francs zafran bu gisee ni mel ni comme ñax la nii bii kilo bi un million cinq cent lay jar gramme bi mille cinq cent franc lay jar bii euh, la ñuy wax faasuuf faasuuf moom daanaka lépp lu kii ay tilim tilim ci sa yaram wala yooyu da koy dindi bii ñu ngi koy jaaye kilo bi un million gramme bi mille franc la kii aussi musc la musc en poudre bii bokk na ci xaw ma yi ci xaw a gën a wàcc tuuti kilo bi cinq cent mille la bi tam liban original la manam danaka moy high class liban yi kilo bi 500000 la bi tam sandal lañ koy wax sandal rose bi tam kilo bi 500000 la aussi amna ci ay huile parce que wood yi aussi bu ci nek amna huile am wudal hindi bi ki moy euh, huile am bi euh, nat bu ndaw bi ñu ngi koy jaay 15000 manam bo xolé litre bi day nek euh 15 millions lay wara a doon waaw tabat sauda bi moom la ñu wax ni euh, sallallahu alayhi moo ci defoon euh, ñaan daanaka mën nañu wax ni lépp lay faj daal à part dee. bii mooy bu Cambodie bi mooy bi gën a cher aussi natt bu ndaw bi vingt cinq mille la maanaam donc litre bi day nekk vingt cinq million waaw. natt bu ndaw bi natt bii lañ koy natte waaw yii wax amiral Oud yii moom dafa boole neex ak baax. bii mu ndaw bi la bu ndaw bi ñu ngi koy jaayee vingt mille francs dañ ko wàññi bee def ko vingt mille gàlle ko foofu am na bu magam bu mag bi moo nekk nii bi trente cinq mille la waaw am na aussi wut bi wut bu mokk la bëri nañu ko soxla lool ci marabu yi en poudre la boobu moom mun nañu wax ne seerul cinq mille lay jar sachet bi gis nga ak kaas bii moom 5000 lay jar. Euh, cuuraay ñan ñoo koy faral di jënd si en général. waaw cuuraay yi moom baax na pour ñëpp mais li ci gën a bëri daal kilifa yi maanaam sëriñ si ñi nga xam ne ñuy def ay wér ñoom dina koy soxla bu baax waaye itam même ci bu dul loolu dafa baax pour suuroo parce que liy ubbi moom defe naa ñëpp ko soxla. liy dàq seytaane loolu moom defe naa aussi ñëpp ko soxla. donc même buñ ci boolewul dara sax jël ko di ko suuroo noonu rek mhm. dafa baax waaw. mais est-ce que commerce cuuraayu cher yi nii dina dox. waaw macha allah ñu ngi ci génn ndax aussi ah, loo gis rek xëy na <laughs> di si jot li say sa wërsëg daal. Mhm. waaw parce que am na ñi koy soxla yoo xam ne moom daanaka ah, daanaka moom rek la ñuy jënd ci cuuraay. waaw waaw waaw daanaka mhm. waaw. la preuve waroon nga fay fekk am na ki ma fi jaay léegi sax boo ko fekkoon mu gën a neex waaw. donc cuuraay yi daal da ngeen si am yéen seen clientèle bu fidèle. am na ci yoo xam ne moom vraiment am na client yoo xam ne moom ak fu ñu mën dem fii la ñu préféré ñëw parce que fii aussi du fii la ñu xamee kii bi euh, dafa yàgg comme euh, tin ci boppam moom moo nekk jidda fa lañ ko xamee liñ ko xamee foofu original la. man dama doon kii bi ñu commencé avant ñuy jaay yi am client yi doon ñëw naan ma waa mais mun leen wax te mu indi tel cuuraay wala tel parfum même bi ci warga bële noonu lañ ma ko kiyee ma woo ko wax ko ko mu indi ko mais presque duy taxaw daal. donc yow sa bagage yi jidda lay jóge. jidda lay jóge waaw. jidda lay jógee daanaka daal moom jidda parce que bagage yi nekk fii ñoo nekk si magasin bi fa lay jidda waaw fa lay jóge directement ñëw. bon euh, mais dañ la ko doon demandé moo tax nga indi. doon laaj waaw li ci bëri daal am na yi ci amoon mais am na ci yu bëri yoo xam ne clients yi ko ñoo doon ñëw di ko laaj parce que comme dañ ko doon kii fël am fële. bon yombal leen ñu ne buñ ko indee fii moo leen di gën arrangé comme ça même bu ñu demul ñu mun ko amee fii ma wax ko kon nag alors mu indi ko. ok est ce que njaarum cuuraay mi dox na cuuraay yi nii est ce mi dox na. waaw sant yàlla <laughs> sant ñoo sant bu baax <laughs> ñoo ngi sant bu baax. yéen a ngi génn. waaw ñu ngi si génn macha allah. Euh, li ñu bëgg xam mooy est-ce que ñiy jaay lii c'est seen revenu annuel dina dina leen yoral sen boutique sen location boutique. waaw bon parce que aussi euh, ak nu mu mën demee moom foog ngay sóoraale lool su fekkee njaay da ngay jaay té aussi lo ci génné sa location ak li ngay fay say ki mom day da di xaw a doy waar waaye nak lu mu gatt bon def nañ ko pour satisfaire clientèle bi mais aussi au moins nañ. xam ni lii au moins bu ñu ko defee ah dinañ ci mën a <laughs> gérer suñu boutique daal ak client euh, kii ak euh, maanaam euh, personnel bi waaw waaw. <laughs> annuel bi ci ñaata lay toll. <laughs> moom. mais xaalis bi bari na daal. ah waaw macha allah sant daal. <laughs> ñu ngi góorgóorlu daal vraiment <laughs> waaw ñu ngi si génn macha allah. cuuraay moom bu dee xeet yi moom daanaka euh, produit kii la non périssable la yooyu moom gaaw la kii gaaw yàqu te aussi wax dëgg fa la lu ci indi balaa muy àgg ci ay yàqu day fekk mu jeex ñu kiyaat leneen wax dëgg fa yàlla boobu ba léegi waaw am na ñoo xam nag dañuy ñëw ne la cuuraay nangam laa bëgg ñu woote après su fekkee kii na foofu mu fexe envoyé ko waaw donc parfois dañ leen laaj yoo xam ne yéen amoo leen ko fii. dinañ wala mu am fi ba pare jeex le temps que muy ñëwaat nga ñëw di ko soxla comme ça xam nga commande bi aussi comme fële lay jóge jidda da ngay xaar. ñaata temps ngay xaar. bon des fois sax mën na nekk 15 jours te mën na nekk sax peut-être une semaine parce que moom ci boppam am na noo xam ne peut-être bu ko defee mën nañ ci gaaw a jot. waaw par avion wala yooyu waaw bu boobaa day gaaw a ñëw daal. fay bi nag ah, ah, ah dinañ fay moom ah, moom ngi war a jógee fële bi fii moom vraiment di di nga fay waaw mais nag lépp clients yi daal jaral nañ ñu ko waaw. ban période lay gën a dox. période yi de léeg-léeg yi di jub seeg yu demee noonu gars yi dañ koy soxla de. donc bu dëkk bi di war a amee dara daal ci la euh, cuuraay di gën a dox. waaw yu mel noonu moom élection yu mel nii vraiment gars yi dañ koy soxla moom. voilà làmb yeeg waaw mbër yi ñu mel noonu dañ koy soxla. parce que à part sëriñ si ab ngay jaay genre ay politiciens ay mbër affaire yooyu. waaw ay politiciens yi ay mbër yi ak sëriñ yi nga xam ne ñooy def ñu leen di defal ay kii yi waaw waaw kilifa am na kilifa yoo xam ne moom. parce que à chaque fois saa yi ñu def seen kii dañu bëgg am ci xeetu cuuraay yi moom la ñuy euh, waaw. kër diine yëpp.

N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.